jërë ngeen jëf mbokk yi nga xam ne yéen ngi topp 24actu point com ñu am mbégte lool àndaat ak yéen tey nag nekk euh, jotaay boo xam ne nag euh, jotaay bu spécial ñu fas yéene ànd ak euh, sëriñ Abdoulahi Coumba sëriñ Abdoulahi Coumba nekk koo xam ne ràññee nañ ko lool ci fànn gi nga xam ne moom lay yëngu muy wàllu fajam cosaan sëriñ Abdoulahi Coumba borom léppay baax tey moom la ñu fas yéene àndal ci jotaay bi nga xam ne moom la ñu tàmbali dañu koy bàyyi rek sëriñ Abdoulahi ma bàyyi la nga nuyoog ñi nga xam ne ñoo lay topp ci 24actu point com. asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh xawlaka yaa muhin wa bika nastahin tawakkaltu alallaahi tawakkaltu alallaahi tawakkaltu alallaahi asalaamaaleykum ñoo ngi nuyu mbokki réew tey ñaan sama borom defal leen jàmm si barkeb si Ahmadou Bamba Xaadim Rasul euh, nga xamante ni sama borom baax nañ ko ci wàllu xam-xam. Euh, jërëjëf euh, Serigne Abdoulaye Coumba borom euh, léppay baax nekk tamit fi nga xam ne nekk moo di Mbour Serigne Abdoulaye xam ni day jafe ne waaye bu bëggoon a xam tuuti rek say jaar-jaar ci wàllu fajum cosaan lan nga ñuy wax. waaw si wàllum fajum cosaan ak aada mm-hmm. dafa doon loo xamante ni dama ko doon si wàññi muy si maam ak si baay mm-hmm. ndax ku xam Serigne Abdoulaye Coumba borom léppay baax. xam samay maam xam samay baay ñoom ñu ngi woon si wàllum fajum cosaan ak aada doon ñoo xam ne ay niti alxuraan woon doon ñoo xamante ni aaj waaye masaana manam boo dikkee si ñoom ñu fajal la ko kon nag mbir mi daa doon loo xamante ni jëlewuñu ko fenn su suñu waaju lañu ko jële waaye nag dañu see gën a jamono ñu nàmpatal ñu si ñu màgg si ban toll nii moo tax xam nañ si aslëf waaw dama ko doon waaw dama ko doon waaye teewul nag gëstu naa si lu yaatoo yaatu gëstu ba fi ne nii it maa ngi siy gëstu alhamdulilah. waaw yemoon sa ndoon la bu ma yemoon sa ndoon la doy na sëkk ndax it bu ma sa ndoon la mboolem aaju waaye maanaam boo dikkee ma saafara ba fi mu ne nii waaye teewuti maam gëstu xam-xam dafa baax loolu moo tax. jërëjëf sëñ Abdoulaye Coumba borom léppay baax ñu dugg ci waxtaan bi ak jàngoro yi nga xam ne ñoo gënal sonal askan wi ndax gis nañ ni ndoxum siti sonal na askan wi lool ndoxum siti naka lay feeñee ci nit ak yow naka nga koy fajee waaw ndoxam siti xañ nañu bër doon dégg ndoxam sit te xam ñu ndoxam siti léegi ndoxam sit dafa am maanaam bu góor ak bu jigéen léegi loolu fokk yow fajkat bi nga xam ko wala yow sëriñ déet ñu bëri xamuñu ko waaw fokk nga xam maam ndoxam siti dafa am bu góor am bu jigéen

nañ koo xam te doonu ko laaj su ko defee benn bu si nekk nag mën nañ koo faj muy bu góor muy bu jigéen bi am na si anam yu nu koy jaare bu góor bi am na si garab yu sa gën a gaaw waaye bu jigéen bi am na si garab yu a gaaw léegi nag day yàgg si nit ba dalay jural mbooleem xeeti jàngoro yu bëree bëree bëri muy sitee ki bokkam ndax tey ji maanaam muy néew doole ak nga xam tey ji sa wàllu soxna doo man dara ak tey ji maanaam li naan li naan li naan kurobët ak yeneen ak yeneen siti moom mooy ndey jàngoro yi moom mm-hmm. bëri na si maanaam nit ki di sooxaali lu mat ay juróom-ñaari jàngoro te cité ndeyam kon cité maanaam mooy base boo ko fajee rek jàngur yi bëri faju léegi ki feebar ki yor ndoxum cité ñëw ci yow yow noo koy fajee yow. waaw loolu sama xam-xam bopp la te garab yi nag maa ngi wutal sama bopp du ma ko jëndee faneen mm. ndax man si si laa dëkk mm. dëkk ba ma dëkki dëkk dëkk la boo xam ne àll ba lépp ay garab la maa ngi wutalil samay bopp samay garab di ko di ko booleel sama bopp di ko joxeel sama bopp ndax loolu ma doy te loolu laa jàng xawma dem si keneen di jëndi ay garab nangam nangam maa ngi wutal sama bopp sama xam-xamu bopp ndax maanaam faj dafa doon loo xam ni lu doy waar la boo siy dugg war nga koo xam rawat na loo xam danga koy jëfandikoo di ko naan kon loola ndax biir lu si duggaat rek mën naa yàq loo xam defar ko du yomb kon looy joxe lu ñuy naan rek war naa doon lu leer war nga ko teg si xam-xam nit ñi ñuy seetaan traitement ndoxum siti day yàgg wala waaw ça dépend si nit ki. Mm-hmm. ak ndoxu siteem ak ni mu ko dalee. Mm-hmm. am na ñoom seen ndoxu site daawul leen am ñoom am ñoom dañ koo judduwaale am ñoo xam dafa yàgg si ñoom lool sax. Mm-hmm. li naan chronique. léegi nag bu dikkee dañuy xam ba xam kii ndoxu site bi yàgg na si moom wala yàggut si moom. su ko defee dinañ xam nag nan la ni maa def ba faj ko waaye nag faj ba nag moom su lu gaaw lay doon amut ay werante nag. amut ay werante. kon daal mi ngi noonu képp koo xam ne am nga ndoxum siti mu sonal la lool euh, dangay gis rek euh, Serigne Abdoulaye Koumba mi nga xam ne mooy fajkatu cosaan bu mag nekk nag ci Mbour mën ngeen koo fekk ci Mbour euh, ay numéro am dina jàll ci suuf sëñ Abdoulaye ñu dem ci jàngoro boo xam ne soriwul ndoxum siti muy hémorroïde ndax danga koy faj. waaw xam nga hémorroïde moom. Hmm. mën naa ne sitee ndeyam. Hmm. waaye dafa am lu bëree bëri lu muy def muy dafa am yoo xam day génn ak du génn. waaye benn bu si nekkit maanaam si benn garab bi lañ koy faje waa si benn garab bi lañ koy faje mm-hmm. comme boo dikkee émérite bu la xool nga xam dafa da émérite dañ jox garab goo xam ni danaa garab gi nii yëg nii nga koy jëfandikoo mm-hmm. nan la ko waxee bis boo ko defee noonu di nga tane mm-hmm. talu leer lan la say wax nag ndax yàgg nañ koo jëfandikoo yàgg nañ ko jox ay nit bu fi réew garab yaa ngi fay dem ba fi mu toll nii garab yaa ngi dem lan moo koy waral ci doomu aadama. hémorroïde moom li koy waral wax naa la cité ndeyam siti mooy ndeyam siti moom moom mooy meññ yooyu yëpp ndax siti maanaam xam naa si toll ak ñaar fukki jàngoro yi tegal aslaf yoo xam ne sitey ndeyam site sitee ko jur nga ne boo toon yooyu mën nga saa mucc kon maanaam siti lu jar a faj la mm. ndax dafa am maanaam bu nëbbu bi ak bu feeñ bi waaw kay waaw kay waaw kay mm. noonu la siti ame mm. boo xam ne day feeñ ak boo xam day nëbbu am na ñoo xam ne maanaam day tàngal seen yaram jër am ñoom day xasan seeni bët di ko xongal wala mu koy soonal mm. am ñoo xam day dajji seeni bi am ñoom da koy xar mm. am yoom booy tundur day tàng am yoom da tere am doom mm. wala boo sa soxna da nga see gaaw noppi yooyu yëpp siti da def ak yeneen feebar yi xam ne day mën na koo mën na koo joxe waaw mu nekk ay jàngoro yoo xam siti ko joxe beneen tamit bu na waaw bu dee jabet lanu koy faj dee su ko jëlee si kenn ñoo koy defaral suñu bopp tamit ñun ñoo koy wutal. waaw jabi de man ñi ma si faj ñëpp tey nan te garab yi wutiwu ma ko fenn maa ngi wutal sama bopp si àll bi defaral ko sama bopp bani ma ko sam bani ma ko jàng woon sama xam-xam mat sëkk ma doo koy joxe bu fekkee it comme maanaam xeetu maanaam sukkar dafa yéeg bala ngaa ñëw si man buñ déggante dama naa la bala ngaa yëg si na nga jaar hôpital ñu xool sa sukkar fe mu toll nga doog a ñëw si man hmm. boo ñëwee si man bu ma paree si yow boo delluwaatee nan laaj te pourtant docteur yi dañ lay wax ne euh, maladi incrable la maanaam jàngoro boo xam ne maladi chronique la du du kii daal. xam nga docteur la ñuy faje muy doom yaag sirop yaag pikir yaag yooyu garab yi si àll bay seen day ñun yoruñu ay doom ak ay garab ak ay sirop ñun la nga xam ne mooy moom moom meññi sirop yaag yooyu moom la ñu yor am si xam-xam bu wér lool jàng ko nag gëstu ko xam ko moo tax maanaam képp ku ñëw rek bu la joxee garab yi la ni boo ko jëfandikoo njëriñ feeñ kon daal nit ki am jabet bu même bu fekkee ne taux bi am na niveau bu man dinaa ko dinaa ko faja faj faj nga xam ni bala ma koo wax mu jëfandikoo waat ya nga xam docteur aaye woon nan ko man maa koy njëkk a wax ni ko mboolem laag la la aaye woon moom limul ma ko man ko jëfandikoo tey kon daal ku ci am jàngoro ji bu ñëwee ci yow sa xel mën naa dal mboolem yéen ko aaye woon na ko bind indaali lépp day baax waaw ba mu commencé moom traitement bi mm. am na diir bu muy yegg man maay xam ni kii mm. maanaam bu jëfandikoo yan ko aaye woon dootu ko andil yeneen gaañ ñu dara muy lépp loo xam ne jëm na ci wàllu euh, jabet waaye nag gis nañ ni tamit euh, borom kër yi euh, ñi nga xam ne dañuy am faiblesse sexuelle wala ñuy néew kàttan wala ñuy gaaw a yëg seen bopp wax nañ ko léegi bari na loo Sénégal ñu bari di ko jiñ lekkee yu mel noonu yow lan nga ñu ci wax. waaw xañ na lekk yi dina ko waral waaye it xañ ni siti dina ko waral ak yeneen feebar waaye bu fekkee xeetu kàttan néew kàttan ak yooyu ak lu mu si mën a doon boo dikkee da nga koy faj si tàng-tàng bi waaw ndax am na si garab yoo xam ni bis boo ko jëfandikoo boo xëyee moom bala ñoo ub jug si lal yaa nu njëkk a woo hmm? mais dafa mel ni dafa wuute ndax am na ñoo xam dañuy gaawee ak seen bépp am na ñoo xam dara loolu noonu ñu koy faram-fàccelee nañ koo tuddi ak télékon hmm. am na si ñoo xam ni dañuy gaawee ak seen bopp lool hmm. loola dañu koy faj am na si ñoo xam nag ku ñëw boo ko joxee garab day tane waaw am na ñoo xam nag moom dañoo mënul dara nag ña mënut dara bu ndikkee nañ fexe ñu mën dara. Ah, waaw xam nga loolu. Hmm. dama see jëflanteeg ay nit ñu bari biir biir réew mi ak réew mi. kon ba fi mu toll nii laa wax. Hmm. garab yi maa ngi koy defar yu war a yoo war a génn réew mi bokkut ak yu war a des si réew mi. Ah, ndax loolu maanaam moom moo moom moom moo gën a jàll. Hmm. ndax ñim dal dafa bari koo gis moom lay woyaale. loolu moo tax li koy war a waxoon naa léegi nee naa la yenn lekk yi. waaw xeeti lekk yi ñuy def si lii nga xeeti jimboo yeeg ay bokkam. Mm-hmm. yooyu moo koy waral mm-hmm. euh, waaw. bu waaw bu fekkee waaw man mi naa jégalu si kàdd gi waaye bu fekkee sa awra. Mm-hmm. dafa dafa toll na ko bëggee. boo dikkee mën na na fexe ba mu toll na ko bëggee. waaw te maanaam maanaam diirum ñetti fan. Mm. nga xam ne bi si diirum ñetti fan bi. Mm. sa lee tolloo na nga bëgg yow yaay woo téléphone yi baax na Ah, te moom du benn jafe-jafe. de du am benn jafe-jafe de. waaw dama ko def ba tey defal ko. ba am na ñu nekk ci réew ñoo xam ne déggoo li am na ñu nekk ci réew ñoo xam ne maam maa leen ko defal. Ah. yow yaay woote ni baax na kay ñu doog ñu doog a bàyyi. <laughs> sëñ mbuur. waaw ndakaaru mbuur la laay nekk. Hmm. waaye xam naa daal mbuur boo ñëwee sa garage ba. Hmm. maanaam boo wootee téléphone ñi wax la fan nekk mm. la sa am solo nag mooy contact mooy téléphone bi foo mën a nekk rek mm. boo nu wooyee téléphone da nga xam fi nekk waaw numéro bi mooy 78 545 10 10 78 545 10 10 bu dee Tigo bi 76 la 679 46 15 679 46 15 mooy numéro bu dee WhatsApp bi nag mooy orange mooy mooy 78 bi. ok kon mbokk yi seetaan mi ngi noonu ñu ànd tey nag ak Serigne Abdoulaye Coumba nekk euh, fajkatu cosaan bu mag boo xam ne ràññee nañ ko ci Sénégal rawatina nag mbuur gi nga xam ne fi la nekk di yëngu dégg ngeen ko jàngoro yu bëri yoo xam ne da koy da koy faj euh, tàmbali nañ ci euh, sëñ bi jigéen ju taxaw. danu koy faj. Mm. ak jigéen koo xam ni day awarte wala koy yaradal ndax ñaar yooyu dañoo bokkut léegi yaradal ak awarte dañoo bokkut benn bu si nekk bu fekkee dalaa dal boo dikkee di mm. la jox sunu garab teg la condition mm. nan la ko waxee boo ko jëfandikoo mm. feer ba dañ. mu deñ waaw mu deñ. Euh, am na a am sax dañu waaw xam nga day am loo xam mbirum rab a koy waral ah, waaw am na loo xam te planique bu yàqu si yaram a koy waral tamit ah, waaw day am yoo xam day yàqu si yaram tas saw yaram hmm. su ko fi maanaam doom dootu la jafe am doom dootu la yomb hmm. yaa ngi dégg bu baax am na si ñoo xam te mbirum rab la hmm. ndax maanaam rab maanaam ni muy feeñoo si nit ki moo doy waar ndax waxuma dinal tee am doom donc waaye yem lay indil day bëri ndax waxoon naa leen la maanaam bu dee góor gi moom mooy am ndawas rab bu dee ku jigéen moom mooy am faru rab góor ndawas rab lay am jigéen faru rab lay am waaye benn bu si nekkit boo dikkee nan xam yow ban nga si am su ko fee nan yow sa far sa faru wala sa ndawas rab nan la ñuy def ba mu deñ waaw li muy yàq bëri na ndax na teel am doom bu dee ku jigéen na ko war ay awarte ak ak xeetu yara dal ak yeneen ak yeneen ay tëju gi tëju yi nga gis yëpp rab da koy def waaye loo séentu doo si jot bunt boo fëgg du ubbeeku day ume rab mën naa tëj sa wërsëg balu baloo yuut doo si jot bunt boo fëgg du ubbeeku déedéet la sa la mu gën a bon mooy nga yaakaar dara baa ngi séentu dara doo si jot Hmm? waaw da koy euh, ku soxla loolu faj bi naka naka loolu faj bi. waaw naka rab. waaye na may fajee loolu moom sama xam-xam bopp la. Hmm. loo xamante ni dama ko doon si waajur. la maanaam ay waaw maanaam rab moom des na ko faj ci yoon yooyu yëpp. Hmm. des na ko faj ci sangat des na ko faj ci téere des na ko faj tamit si yeneen anam. noonu lañ koy faje des na ko faj tamit si kurus muy turu yàlla mhm. ndax loolu la am suñu waajur kurus la amoon waaw kurus képp ma si yemoon rek mhm. aaj ju mën doon man naa ko see saafara waaw waaw wàllum seet ak wàllum listixaar mhm. dama koy def ndax maanaam seet ak listixaar si ni ma la ko man a misaal mi ngi mel ne lu bokk ndey te bokkuñu bàyyi ndax bu fekkee da ngay seetlu wala da ngay listixaarlu bu dee seet joonu joonu lay doon mm. da ngay ñëw léegi mm. ñi seetal la léegi mm. wala nga woo téléphone léegi jëru ngay coupé ñi seetal la léegi boo dikkee di seetlu jëru ngay wax dara yow dikkal ne damaa bëggoon ko ma seetlu bu dikkee. nañ damay seetlu rek. bu paree ngay seetee wala ci kaamin wala ci suuf parce que bëri na anam ñu bëri ak ku nekk ak ñi ngay seetee yow man sama xam-xam yi bopp dinaa seet si kurus. dinaa seetee si yeneen ak yeneen ndox sax dama siy seet. ndox mi dama siy seet sa loxo yi dama siy seet. Mm-hmm. moom moom moom laa njëkk moom laa. waaw moom laa njëkk moom laa njëkk njëkk xam nag. Mm-hmm. tey sa loxo ni seet si. waaye léegi koo xam ne dafa nekk bitim may seetal parce que ñu nekk bitim réew ñoo si ëpp. Mm-hmm. dañuy woote téléphone jël ñuy coupé ma wax leen mbooleem fon ma sa jaar yëpp ak jafe-jafe yi ñuy dund ak la saafara yow wootee rek jëru ngay coupé ñu wax li nekk si yow lépp. ndax seet ak li saxaar. Hmm. maanaam la muy tax xam bëri na. Hmm. ndax bëri na koo xam mi woon si yàqu-yàqu wala si tolof-tolof wala si jafe-jafe yu mën a doon. Hmm. te tey jii buñ ko seetalee man koo wax jafe-jafe ya lan moo ko waral. ak lan mooy saafara jafe-jafe ya. seet nag bokkut ak listixaar mm-hmm. listixaar nag moom dañ lay fanaanoo mm-hmm. da ngay da waaw mm-hmm. tey ba fi ne nii nii rek li may wax si listixaar war naa mat ñaar fukki listixaar yoo xam ne suba la borom di ñëw wala ñu woote ma wax leen bokkut ak seet voilà ginnaaw seet ak listixaar lu ko soriwul dara muy dugg xalwatu xalwa euh, barina ay kilifa yoo xam ne dañ koy soxla ndax euh, am na ay entreprise yoo xam ne dañuy am ay jafe-jafe wala ak yeneen ak yeneen ak yeneen waaw bu dee xalwat dama ko doon samay waajur ak samay maam ñoom seen adduna sépp si turu yàlla ak dugg xalwa lañ ko def te man mi wax ak yow sama waajur daa toog huit heures ba huit heures hmm? waaw ak sama yeneen waajur yu bokk ak moom benn baay fa leen fan fa ndabal reer la fekk fa la leen ndékki lay fekk ñu toog di di wérdu boole koog seeni naafi la hmm. te sama borom doon ne adduxoon ne astajib lakum ñaan leen mu may leen kon loolu du asar hmm. léegi nag maanaam ñooñu di ay wàlliw ma meññ koo sa ñoom yor déeti wàlliw kon lu ma ñaan ma am la nekk ci butéel waaw mooy xeeñ ci kubéer gi. Mm-hmm. bu dugg xel woon dama ko teel nag def. Mm-hmm. ndax daanaa ko fowantoo di ko def te booba kenn daw ma ñaanloo. ma jig-jigi tëju ay ñaari fan ak yooyu. ñaata booba xam naa jàpp ma adi waaye booba xam naa. Mm-hmm. tuut tànk la sahir dama ko daa fowantoo daal. di di dugg xal waaw dugg xal waaw. léeg-léeg daana tëju nii sax. ba ba léeg-léeg bu ma génnee sama morom sax ñu naa ma yow daa mel temps yi sa xel mi day lii ak da ngay perte nangam nangam. te boobu dama daa wérdu dama ko teel di fawantoog yooyu dem nag mujj nag ba man ko ba mu wuy si ma ndax lépp loo xam sa waajur moo ko daa liggéey boo ne sa càpp rek yàlla wuy si la sa doo ñaan nag doon loo xam ni damaa jékki-jékki rek nekk sa wala ma ko nekk déedéet dama see judd nekk waaw kay dama see judd waaw jaaru yi maa liggéey foo ko gis si réew miit hmm. bu mel nii foo ko mën gis réew mi si man la bàyyi ko kon daal yow modèle bii nii am per bi si kaw man donc maa ko si réew mi nag laa wax biir réew mi ak biti réew mi man si Abdoulaye Kumba borom léppay baax maa ko am. Hmm? si dee jaaro bi nii mu mel ni am palaat bi nii. barina si réew mi waaye nii mu amee per kaw. Hmm. si man nga koy gisee doo gisee faneen. jaaro bi moom day bayre bu yéeme sax. Hmm. bu yéeme kaaraange gu yéeme it bayra. ça dépend si nit kii ñëw lu mu bëgg ñu soxal ko ko si biir jaaro bi waaye jaaro bi xaatim bi nu siy def maanaam 5995 moo jàpp tur mboolem doomu aadama yëpp ñu wàccee ko yaa fat tur turu doomu aadama bi naan turu yàlla naan yaa fat tax yoo aju ubbeeku ji ndax boo amee nit ñi te ubbeeku amul moo ñu def si yaa fat tax yoo aju ubbeeku ji nga xam ne boo ko boolee loolu lépp moom lay def si biir jaar nga xam da ngay am nit ñi da ngay ubbeeku mm-hmm. te boo amee nit ñi ubbeeku ñàkkatoo dara waaw loolu jaaro yi moom mm-hmm. mm, li ma liggéey mu génn réew mi sax moo gën li moo ëpp li muy li muy ne si biir réew mm-hmm. ndax dama si am ay commandes yi dem waaw kaaraange gi si nekk mm, ma nee naa la maanaam day daw si sa xibla gu si nekk juróom-ñaari kilomètre juróom-ñaari kilomètre waaw si dëkk bi nga nekk moo xam dëkk boo mën a nekk kaaraange na juróom-ñaari kilomètre si mboolem xibla goo nekk maanaam moo xam penku bi la sawu bi ndeyjoor càmmañ kaaraange noonu lay soree damaa jël léegi maanaam kër gi nga nekk waaye koñ bi nga nekk yaa indi aar boo ko takkee ci kaaraange waaw te boog lii maanaam soog mm. da nga koy dégg waaye doo sa doo sa bokk mm. soog moom doo sa bokk bëri ñu ko takk bëri na ñoo xam defaral naa leen ko xombal gii la defee soog mm. gis nga ban defee soog maanaam saret lan yoroon maanaam benn kab yoo moo fee ba maanaam fas wi dafa faat ba mokk ñoom dara dalu leen hmm? dara dalu leen te na ma leen ko waxee woon noonu la damay leen jaar bi ma takkee soog moom da ngeen koy nettale moom dee dét maanaam kabe boobu da sëf ba fees hmm. jaar ci kaw sere beeg fas wa hmm. te ñoom dara dalu leen dara xusiwu leen ah, kaaraange la kaaraange la yaakaar naa ñoo ko dégg képp koo xam ne soxla bi euh, mën nag na ak yi may gis wax dëgg yàlla yi may faral di jaay di koy wax euh, nga xam ne mooy daw ci suuf euh, di ko ci mën a jot Euh, dégg waaw <laughs> xam na askan wi lool de moom day yëngu rawat na jamono yi ñuy toll. Hmm. maanaam day yëngu ba ay si am si. Hmm. ak yëngu si yeneen façon anam. Hmm. waaye benn bu mu si mën a nekk rek bu nu ko yëgee mu saafara lenn lu si maa nekk rek bu nu ko yéegee mu saafara ndax problème day doon si diggante ñaari way dencante yi wala doon si diggante maanaam ay rab yoo xam ne jubóowuñu wala xeet yooyu lay doon léeg-léeg di takk soxna boo xam ne maanaam seen rab déggoowuñu waaw hmm. waaye loolu nag sa dugg la ba sa dugg da ko waroon a seet ah. soxna dañ koy seet ab sëy dañu koy seet. Mm-hmm. bu fekkee dëppoo na. Mm-hmm. ndax maanaam boo ko am na seet goo xam ni. Mm-hmm. dañ lay wan la doomu adama yi ñeenti raw xam dafa nekk si moom. muy ndox ak ngelaw ak suuf ak sawara. léegi yii dañoo mën ànd yii mënuñoo ànd. yii tane na yii nag moom xaaj ñoo tane sax. léegi nag boo ko xamee nag maam da koy seet fa ba mu dëppoo nga seet ko si nag si yeneen anami seet yi. ba yëpp dëppoo. nga doog leen wax baax na mm-hmm. waaye fekk gis nga si leen lu tey sam xel rek mm-hmm. bu leen sa dugguloo mm-hmm. ndax buñ sa duggee gis ko waaw bu dee sëy bu am jafe-jafe moom bu fekkee danoo tàggoo ñoom ñaar bu fekkee maanaam ku góor ki dafa bëgg a jëlaat soxna si bu moo ngi na ko jëlaat bu fekkee ku jigéen moo bëgg a dellu bu ma ko ñaareel jëkkëram na ko jëlaat waaw kon nag bu dee Cheikh Oumar Ndiaye mi nga xam ko toogal ma ko defee loo xam ne nii day nato day neex ñooy ñooy ñëw jël si ko Hmm? waaw. la ma koy defal fa muy ñaani jabar hmm. li ma koy defal hmm. maam day mujj neex soxna sa neex bokki soxna si ñëw nga xam bu dee mu dañuy jëw jël si ko ne ko ñëwal ñu may la ko waaw day am na ñoom day dem ba âge sax ba am ay ñeent fukki ak nangam ñooñu bu nu dikkee bu ma leen xoolee dana xam ba xam ñi dinaa xam ba xam ñi lan moo leen tee am boroom kër su ko fee ma ñaan leen sa mu saafaroo waaw ma ñaanal leen sa xam euh, hmm. euh, waaye ñi xam ne dañuy am ay bu fekkee da nga am jafe-jafe kayit hmm. moo xam nga nekk si réew mii hmm. bëgg a génn te jafe-jafe kayit nga am ko maanaam bu ñu si déggantee bu ma leen si ñaanalee am ko bu fekkee da ngaa dem ba réew nag am ay jafe-jafe kayit bu leen ñaale nga am ko bëri na ñu bëri ñu ne réew ñoo xam ne amuñu ko waaye ba leen ñaalee booba dana ko am bu fekkee tamit da ngaa nekk yeneen jafe-jafe mooy tey jii ñi téye la te yóbboogun la woo ñu téléphone jërul ngay coupé waaw hmm. wa léeg da da nga koy téye si forot hmm. mu nekk réew ko man jërul may coupé ma yor sama kurus ba keroog mu naan bàyyi nan ma. ba keroog ñu ba keroog mu naan bàyyi nan ma. ah loolu de sëñ <laughs> waaye yoon yëmut ci benn sëñ euh, Abdoulaye Koumba. day sama kër <laughs> di sama daara. doon foo xam dama ko taamu lool te ni ma ko taamu noonu la ko réew mi taamoo. kon nag euh, maa ngi leen ñaanal bu baax sama borom defal leen jàmm. di ko ñaanal si Ahmadou Ndiaye. mi nga xam ne moom lañ àndal. Mm-hmm. sama borom defal ko jàmm. Mm-hmm. waaye daal di wax waa réew mi it Eh, ni nañuy gën a maytu si lu bëree bëree bëri bër na si yoo xam mi nga dal nit ki te moo ko teg boppam rawat nag jigéen ñi mooy xeeti col ko yi nii col te rab dafa bëgg yenn yi. Ah, waaw mbiri rab la rab ñaar dafa bëgg kuy sol lu gàtt hmm. wala jigéen kuy sol lu yaraax wala jigéen goo xam jigéen goo xam du dox waxtu waaw foofu lay man a am occasion dugg la ba mën a def la muy def sa yow kon nanu koy maytu ak ba si góor ñi dox yenn heure yi muy diggu njolloor ak heure yi timis yeeg yooyu baaxutit waaw waaw mag ñi dañ ko daa aaye mm-hmm. te mag ñi moom lan daa aaye moom képp ko def moom gis la tax ñu koy aaye waaw gis la di sant waa Mbour mm-hmm. di sant waa Dakar mm-hmm. di sant waa Cilla Eh, di sant waa adduna bépp waaye di sant nag mbooleem taalibe yeeg ñëpp rawat na ñaa xam ne ña nga bitim réew te di ñu déglu di ñu topp te dina ñu ñaanloo kon ñu ngi leen di sant bu baax a baax te ñaan sama borom defal leen jàmm di ñaan bu baax it mun eh, Muntaxa Basiiru Mbàkke sama borom yàggal ko fi si barkeb Seexul Xaddiim jërëjëf <laughs> jërëjëf. Euh, jërëjëf euh, ñu ngi koy sant baax di ko gërëm mu nekkoon euh, Serigne Abdou Lahad Coumba borom léppay baax tey moom lañu dalaloon ci 24actu yi ci lépp loo xam ne jëm na ci wàllu fajum cosaan di ko sant bu baax lépp loo xam ne nag li xam ne am na fi kon ku ko soxla rek numéro bi nga xam ne moom mooy daw suuf dañ koy mën a topp ñu xam ne nag moo di ci mbuur ngir ànd ci ak moom waaye bu nekkee Dakar itam waaye li ma def. waaw ah, kay bu ñu wootee incha allahu rabi dina ñëwee ñu sant baax Serigne Ahmadou Ndiaye moom tamit euh, ku baax euh, sant Cheikhouna Ndiaye mi nekkoon ci caméra bi Serigne Fallou ak euh, Serigne bi ci jàpp yëpp di leen jox dig daje incha allah ci beneen jotaay jërë ngeen def